delloo tooñaange digganteem ak moroomam farata la joo xam ne mënta ñàkk war na caa taxaw temm ku ko woyefal nag da nga jekk bis ba xam ne ëppoon naa woyefal ndax yàlla moom dafa mën a jéggale lool lu dox digganteem ab jaamam rek ndegam bokkaaliwu ko keneen mën na ko ko di jéggal waaye nag nit moom dafa néew doole te bale joxe ko leg leg rawante na bu taxawé ci bisu pencho ba kon ko amel kenn toñangé da taxaw tem ci defar digënté ak mom ba bu ko lati jenn ak tumal mazalimu top toñangé ya ata dik nañu qismay ni bir mu ñi ñaari xaj amwalan ay alal aradan ak i der bi xëyri may ci lu dul fen fal dut na delloo al am waala àll ya lil arbaa bi jëme ci seeni woroom in wujjudoo ndem fekkeef na leen ak dëxëra ci jamono bilar tiyaa bi ci lu benn sikki sàkka tumma ida lam yu jadu topp ndem fekkeefu leen ci jamono fal yar dut kon na ko delloo li waarisihimoo jëm ci seen way donn bila taraddudin ci ludul deng dengi bila taraddudin ci ludul isaalam yu jadu topp ndéem fekkee fu leen ci jamono tasaddaqa mu saraxe an hum walis ñoom bi xaa ci alal yooyee kazaniki nii xakaa la ko nettalee man ka nga xam ne xaqaqa dëggal na haqqa bob moy enquête gestu masale yeeg xam-xam yi barañu leen bu baaxa baax mu ne nak walu gi nit mëna toñ morom dafa def ñaari xaj ben ma aju ci walu alal ba mu aju ci yaq ab def mu njëkk wax nak bu dé walu alal mom moy gëna yomba defar ndax bu dé ak jambur jo xamni alal rek la su fa borom nekkee da ngay fexe ba delloo ko alal ja te jéglu ko su fekkee ni borom alal ja nekku fa génn àdduna nga seet ña nga xam ne ñoo ko war a donn nga jox leen alal ja su fekkee ne ña ko war a donn nekkuñu fa gisoo ca kenn nga ko ko yéene ko tuyaaba ja nga xam ne daal alal moom moo gën a wa yastaxillu dana sàkkoo daganlu mooy dana sàkkoo jéggalu ku la irudin bépp der akala bopp lekkoon na ko bi ribatin ci jëw aw xadfin wala xaste aw chatmin wala aw ŋàññ jalaawoo feeñ na in kaana ndem nekk na moom kooka xaadiran di aji teew ama in fuqida ndaal ndem ñàkkeef na ko fal yukk siran nay baril xayran yiw la an ndax lee moom yajidu dana am shay an dara yu addi loolu dana mën a jooxe maanaam dana mën a fayee xàq kullihim ak képp ci ñoom bihi ca moom mustaghfiran mbir muy aji sàkku njëggal wal yarju te na yaakaar xafwa rabbihi jëggaluk boroomam bu dee nag tooñ gam tooñ moroomam nitam da di yàq ab der moom moo gën a jafe ay mbir ndax léeg-léeg ka nga yàq ab deram nekk fi te doo mën a jàkkaarloo mu ne ko maa yàqoon sab ci nangam ak nangam waaye daal na taxaw temm ci képp kum yàqoon ab deram rek mu jéggalu ko ne ko jéggal ma maa la tooñoon ni ki bu fekkee da koo jëwoon mbaa mu tuumaaloon ko ci ndox tànk caaxaan ni ki njaaloo mbaa lu ko nuru lu mu mën doon daal ndegam moom kooku déggoon na ko ba la ko cay naqari naqari ko ca na ko jégglu ba mu jéggal ko su dee nag kooka dégg ko woon te bu ko waxaatee dana ko naqari lool ba tukkal àddunaam baa bu dee julli sax amu naqar ba du teewlooti kon du ko ko mën a wax bu fekkee ne it kam yàqoon ab deram xës na génn àdduna mbaa sori na soriwaay boo xam ne mënta fexe ba jokkoonteeg moom jeex na kon du ko mën a jéglooti xanaa rek baril aw yu baril tuyaa ba nga xamee ne bu taseeg moom ëllëg ca àllaaxira fay ko rek mbaa boog yàlla gërëm ko ba fayal ko àq yooyu yépp ndax yàlla mën naa gërëm ab jaamam ba fayal ko àq ya nga xam ne moom la séqoo nag doomi aadama yi ndax bu gisee jaam bi rëccu tuub tuub gu sell sell lépp lu mën a delloo ci àqi jaamur yi mu ngi koy jiyam lam ci tëre yàlla mën na koo gërëm ba fayal ko ko jaam bi nag da ko wër ne bu tooñee moroomam jaamam rekk tooñaale na boroomam boole ci ndax yàlla ci boppam moo njëkk digle maandu ak ñàkk tooñ kenn kon nag ku tooñ moroomam jaamam rekk xëtt na tereeg yàlla mel ne kon xëtt na ak boroom bi tooñ nag mbindeef moomee moo tax kon war nay jégalu bu baax a baax jégalu boroomam jégalu moroomam te yaakaar nag yàlla jégal ko waxi juufoo war na ci mukallaf ak wattoom al lisaana làmmiñ wa min fahshain ci aw ñaawteef wa min qabihil xawli ak ci aji boni wax wal miraay ak werante xaqiqatul xawli dëgg-dëggi wax alxabiis ci di aji bon kulluma mooy jëpp wax joo xam ne tàkkoon da nga nekk gaa xayaa indi borom kersa min fu ci moom faax la man na nga xam wajaw wasu daganal nañu tasrixaho ak wéralam maanaam ak xappateem wax ko ci digg ba indal bali bi fa aji gàtt xel in kaana dem nekk na laa yëf xamu du dégg talwihan junj yu fii du koog dana jariñ xaqiqatul miraa yi dëgg-dëggi werante xinda man nga xam ne daraa xam na juhóodu xàqin moo di weddi dëgg ba adama xaddu zahara ca gannaaw ba mu feeñee wa daf xuhu akuk jiñam bi baatil neen wa baasin aku ay li kurhi qasdil jaahi ngir sib suufeel daraja maam ngir bañ ku suufeel darajaam inda fa nit ña day jaal di wax yi nga xamee ne waru garu mukallaf la ben muy lu wara def mba muy lu wara moytu bayiko ko bu ñëk tudd nak ni wara samé aw lamé ñam bu noppé tek ci ni wara samé a ndax sax ci kanam dana wax mukallaf mu né ni wara samé sàmme joom ñaar waaye nak lamé mi bu tambalé ak bëtt mi ci tek mom dañ ci raw motax mu né kon mukallaf mu né war sàmm làmmiñam bañ caa wax dara ay aay rawante na wax ju ñaaw wala werante nee na ñu cër yëpp buñ xëyee dañuy wax làmmiñ ne ko góor góorlu rekk te jub yow daal boo jubee ñun cër yëpp daanu jub waaye boo dëngee rek ñun ñëpp nu dëng bu nee nag mu mu ne warna moy moytoo wax ci làmmiñam dara lu ñaaw warna te téye tam di ca moytoo werante da lay xamal nak lan moy wax ju ñaaw ak lan moy werante ba nga mën leena moytu mu ne wax ju ñaaw moom mooy jëpp wax joo xam ne boo dee kuy rus maanaam ku am kersa rek da ko rusa wax jëpp wax joo rusa wax rek xamal ni rafetut ndax bu rafetoon doo ko rusa wax kon takk-takk bi ñu xàmmee wax ji ñaaw te war koo moytu mooy rek jëpp wax joo xam ne daal bu ko ko dee rus bu ko waxee rek rus teewul nag nee na bu fekkee ka ñi waxal rus ta ñàkk wax ak moom loola te xelam daa gàtt ba nga xamee ne boo ko liyaaree du ko xam faaw rek nga xappati ci digg ba mu door koo xam su boobaa man ngaa jaar ci digg ba wax wax yi nu leer nañ lu loola ñaaw ñaaw du ca wàññi dara mel ne bu ñuy jàngalee daal ñu ko misaal ci jotek góor ak jigéen koy wax al wat o dañ koy wax rek laal noonu buñ koy jàngal ci téere yi dañ lay wax al wat o laal te jublu ci jotek góor góoru jigéen ci sawukaay buñ ko dee jàngal koo xam ne nag loo ko liyaar liyaar du ko mën a xam mënees mënees na ko wax kon ni ko wala fi waxe dëgg-dëgg waaye dañoo bëgg daal lépp lu aju ci buntu suuf ak buntu sawukaay ñu koy tegginal bañ caa wax lenn ci xoppati lépp lu aju ci jote góoru jigéen nit ñu di ko tegginal wax ko waxin wu rafet bañ a jaar ci digg ba mu teg ci werante ne la werante moom mooy xam ci sa xol ne lii mooy dëgg ba noppi nag teg ci sa tànk luñ wax rek nga wax teg ca fekk na wër la léew li ngay wax lépp ay caaxaan dong la aw ay dong lay indi te it bañ ku sippi sa daraja rek moo tax ngay wax lii waaye ci sa xol moom xam nga ne lii nga dégg mooy dëgg saa yoo xasee dégg dëgg ba noppi daal gàntu ko teg ci sa tànk jàll di soow rek di yey loolu werante la de sax ñàkk xam dëgg di ko gëstu bëgg dëgg feeñ ba nga topp ko ngir yàlla moom lu baax a la tuyaaba la wa min ihanatin ak ci ak dal aw intihaarin wala gëdd li muslimin ñal ab julit aw sabbihi wala ak ngañam bil aari ci gàcce wa mislu si kem yii la tax wii fuhoo ak ragalloom tax wii fan ak ragalloo fi xëyri xaqi sharxi ci dul ak yoon laa taxifan bul jeng laakin nahoo waaye moom nag mujawwasul lañu daganal la xinda fuxoolil xiiri fa kuuy yi tànneef ya maanaam fa boroom xam-xam yu baax yi rek fil bi ci géttan wa taasiri ak yar day jàll ci yi nga xamee ne mu mukaalaf da ko wara moytu ci làmmiñam mu ne bokk na ca muy gëdd mbokkum jullitam mbaa mu koy ŋàññ di ko teg gàcce mbaa mu di ko yabaka doya dal ci lamiñam kenn ku ne mbokum julitam da ko war wax aw yu diko ko ñaanal diko waxante ak mom te diko moyto gëdd mu ci aw lamiñam lu aram la rawante na mu diko ko xuppu diko xupp te fekk na julit boobee deful dara luñ koy xuppee ka yeddee ka gëdd ak dara ne moom bu jàddee yoon sax faw mbokkum julitam ci boppam moo koy delloo ci yoon wa bu dee luñ ko war a gétane ñu gétan ko bu dee luñ ko war a yare ñu yar ko ca gétan mooy loo xam ne ci boppam moo rëdd ci téere bi ne ku jàdd def nangam nañ ko def nangam at tansiir yar nag moom mooy jàdd yoon goo xam ne téere bi waxu ca dara ne ku ko def nañ ko def nangam nga xam ne àttekat ba ci boppam mooy seet lañ ko war a def rek mu def ko ko ñu tudde ko ab yar ba boo liggéey du ko defati waxaay ko saa ni ki ni alyaminu giñ bi talaaxi ci mu passé mu luñ araamal la walay sa bittifaaxin waaye dir mi nekk ci dëppoo li xabari nahi, yi ngir xibaarub tere ga anil yamini walis ngiñ bil xirq ci ak goreel wa talaax ak pase fi tab yi ni ca biral ga wa mani ataada ku baaxoo bi xaa ci ngiñ loolu ala parti bi ci tofsale fa innahu naka moom yakunu dana yàlla nekk zaata diibin di boromuk yar idi ngir lay sa yaxalifu déddi giñ bi kat talaaxi ci lu mel ne ki pase wal xitqi ak goreel aadatan ci aada si wal fussaaqi ndare saay-saay sax dafa jàll ci yi mu kàllaf war di moytu ci aw làmmiñam muy giñ ci fase soxnaam wala giñ ci goreel ab jaamam ci jamono yi jaam amee passé day lo xam mbolim yi dagan mom la ci yalla gëna bañ waye nak su day mënta ñak ku yabu def ko ndax amna and bo boo taggo ko ne dem moko tané waye nak la ci addis ba ayé moy jekki diko waat niki di waxna tay dal duma genn kër gi waat naa ci yàlla su ma génnee kër gi rek sama soxna si fase na ak yu demee noonu goreel ab jaam itam jamono yi jaam amee goreel ga ngir yàlla bokk na ci bari tuyaaba lool waaye moom itam addis ba daa aaye kenn di waat ci goreel ab jaamam ni ki mu ne tey daal moom kenn mënta fexe ba jëw waat naa ci yàlla su ma jëwee rek sama jaam bi gore na lépp luy waat ci fase mbaa ci goreel ak jaam daal moom xëy na sax nun du sunu aada mel na ne na ko julit bi di moytu na ko taalibe bi di moytu ndax laa taxlifu bitalaaqi wala bilxitaaqi fa innahuma min aymaanil fusaaq mu ne xibaar boobu tere yooyu yaar te waxe ko noonu motax tax ab julit rawante ab talibé war di moyto wat ci lamiñam lu mel nonu té nak kuko saxo di ko def rek mané ko defu xewet ñu war ko yax ba bu ëllëgé du ko defati nañ ko nak nag kat ba rek mo koy xéet lu ci yell mu def ko ko la tax itam moy ko fekk muy wat ci fase soxnam ba muy wat ci gore ab jaamam kàccoor rek lay doon boo xam ne day ko lislaamam rafetut bu dee ab jullitit daal day ko ñaawu lislaam mooy faral di waat ci fase soxnaam ba goreel ab jaamam li tax mu ne muharramun wala sa bittifaaqi mooy biñ ko aaye noonu daa am ñu wax ne aaye gi aaye araamal la am ñu ne aaye gi aayeg sib rek la àggul ci araamal waxi duhoo war na ci mukallaf ak wattoom basaraxoo gisam ba minal xaraami ci aji araam laa yam vuran bu mu xool maa loo xam ne lam ya jus daganut an yam vuraxoo mu xool ko ka nadarin ni xool bi nadaratin ci ab xooliin lil muslimi jëm ci ab julit tu fii boobu dana ko lof laali faasix ni waxuñ jëm ci ab saay-saay aw mujrimin mbaa ab yéefër mujrim day firi aji tooñ waaye yéefër lañ ci jublu ba li fi nekk waajibun aji war la xàll ci moom fii ci la nga xam ne shuriha yoona leef na ko hijraanuhu ak tongam tong mooy jàmbu bañ koo tudd bañ koo taas nasihatan ngir laabiire lier jiha ngir mu dellu dafa jàll ci bët te la bët de moom lu doy waar la mu kàllaf mu ne war ne sàmm ay bëtam ba bañ ca xool mu wërto taw bokk na ci xool yi ñuy aaye nag muy xool mbokkum jullitam xool bu ñaaw boo xam ne bu ko kooku ne jàkk rek daal di xam ne moom mi ëmbalu ko aw yiw ab jullit daa war a jàpp mbokkum jullitam ne boppam bu ko def waaye waru koo xool nag xool bu ñaawe noonu bu dee nag kooku julit la waaye day kàccoor maanaam day def lu yàlla aaye te du ko làq-làqal da koy fisal ñi di ko gis wala muy ak yéefar ñooy ñaar moom du yem rek ci xool leen xool bu ñaawa ñaaw waaye dañ leen a war a jàmbu ndax xëy na ku leen jàmbu ba ñu xat bu dee kàccoor ba dana tuub dellu ci rafetal bu dee yëfar ba dana xat ba tuub dugg ci lislaam nga xam ne képp koy jàmbu jàmbu goo xam ne ngir yàlla rek a tax jàmbu ga mën naa yàgg lool waaye nag bu dee goo xam ne moom dong la daañu la ca may ñetti fan dong waaye doo ko sañ a weesu lislaam nit dana di mer ak jàpp mer lum néew néew waaye nag ku mere moroom ma am lu ko naqari ca moom daal ba tax mu jàmb ko itam bu mu ko weesale ñetti fan te wàllu bakkanam dong la su ñetti fan ñi ma tee na ko daal di nuyu te defaroog moom nuyu ko jàmmanteeg moom daal di jeexal rek jàmbu ga bu dee da koy jàmbu jàmbu goo xam ne moom yàlla rek tax tax daam lu koy aaye lu yàlla bañ te nangu ko bàyyi te mënu ci dara nga daam lu koy digal ni ki julli te du ko def te mënu ci dara lu mel noonu mën koo jàmb jàmb gu yàgg yàgg a bëgg koo labiré bëgg mu xat rek ba bu dee julli ba mu tuub yu rafetal bu dee yéefar ba mu tuub dugg ci lislaam bokk ci waa lislaam wa mën a tere nañu an nazara xool li nisaay ñeel jigéen ña al ajnabiyaati ña di ay jaambur wakal hasnay ak nik aj rafet min kulli suratin ci wepp melo wala ci bepp photo al tidazin ci kaw banexu ka am radir rijaali niki toyamu góor ña tayam saxagul sikim fahdar nga watandiku haadi yile wa minhu bokk na ci itam nadratun khol hal xalaxti xaarin ci kaw ak xeebeel kazaliki nii li tax wiifin ngir ragalloo awin tihaarin wala gëdd day jàll ci xool yi nga xam ne ñoo aay mu ne góor sañ ta xool jigéen joo xam ne jaambur la ci moom lu may rek kanam nga dong ak téng ya jigéen joo xam ne jaambur la ci yow mooy koo xam ne araamu ci sëy moo xam nag mi ngi sëy moo xam sëyut kooku la nga sañ gis ca moom mooy kanam nga ak ténq ya kanam nga moom bu fekkee ragaloo ci xool ba fitna te it xooloo ko ngir bànneexu ca xool ba kon mën ngaa xool kanamam waaye nag moom jigéen ca itam war naa sàmmoonteeg bu dee génn mbaamu nekk foo xam ne ab jaambur bu góor mën naa dox ba yem ci moom mu sàng lépp yaramam ba mu des kanam gaag téng ya am na sax ñi aaye xool kanam nga ci ñenn ñi ubbee waaye li ñu sukkandikoo daal ci gis-gisu Malik ak sax ñu bare bari ci borom xam-xam yi mooy jigéen ji sañ naa feeñal kanamam ak téngam bañ ko muur góor itam lu don doon doon jaamur ci moom mën naa xool kanam nga ndegam ragalul ci xool ga fitna jublu ci itam bànneex bu dee nag jigéen ja da ngeen a araamante araamante goo xam ne du yëy la kon da nga mën a xool bopp loos wa ak loxo yaag tànk ya nga xam ne jigéen ji bu nekkee koo xam ne góor la gum aramanteel aramante gu sardiwey mën naa bañ a muur kanamam ak baatam ak ay loxoom ak i tànkam mu ne itam bépp photo boo xam ne kooka mën na koo xool am ca bànneex bu koy taxa mooy yàlla araam na mu xool ko moo xam nag photo ba image boobee dañ koy feeñal ci tele wala ci théâtre wala ci journal yi mbaa ci mbedd yi moom daal lépp loo xam ne su ko xoolee rek mën na ko yóbbu ci mooy yàlla rek day araam mu xool ko moo xam góor la moo xam jigéen la ku ci nekk daal nay moytoo xool loo xam ne mën na ko yóbbu ci mooy ba ci sax xale bu góor bu rafet boo xam ne saxul sikkim dañu bañ góor ni moom di ko xool xoolu bànneexu bu dee kuy def yëf yi ngóor jigéen yooyu mën na am xelam nekk ca loola te sax nun loolu du suñuy mbir mel na ne xëy na taax yaag tubaab ya léegi daal la xaw a ci réew mi ba ñu ko fi tudd waaye ci cosaan daal moom mbirum ngóor jigéen demu fi woon noonu waaye nag léegi moom siiw na ba am ñu koy tuddoo di ko fésal ba tey itam jigéen bu defee ne bu xoolee xale bu góor bu rafetu noonu te saxagul sikkim mën na ko yóbbu ci jéema mooy ak moom yàlla it ba tey kon dana araam mu xool ko ndax lépp lu yóbboo ci mooy yàlla rek dañ koo war a wattandiko saa xoolee nag loo xam ne araam naa xool mu daal di bàyyi fa saasay saasa kenn ko bindal bakkaar ca xool boobee waaye nag bu jàllee xool rek ñu bindal ko bàkkaar ba mu ne bokk na ci xool yi aay lool nag di xool sa mbokkum julit xoolub xeebeel mbaa xoolub gëddaate mbaa xoolub xuppaate ndax ni nga xamee làmmiñ mënees na caa xeebaate mënees na caa gëddaate mënees na caa xuppaate bëtit noonu la kon nag araam na ci ab julit muy xool mbokkum julitam xoolub xeeb mbaa xoolub gëdd mbaa xoolub xuppaate wa yabdu man dana warlu alaa inu aji ay bët maa la nga xam ne xadd xalaka alkoona bi ay nit ci bëtam kamar raïs ki nga xam ne kilifa ga kamar raïsu xadd xakaa net li na ko wayus jëlu def na tëj almi ayaanu borom bët bu aay ba xay sus taxara fu fi siiwee bépp borru ci lor fii man si lihi ci këram xi na nga wattu alxabara xibaar ba ko amé bëtt bu ay moy ko xamné yalla def ay ci bëttam nga xamné bu xolé rek lam xol daldi sik bamu yaqku yaxayat lolu yalla ko def da am ayu bëtt ak ayu lamiñ ci kaw dawlu yalla kuñ xam ci mom nak ni mom yalla def na ci mom ay bëtt ba lum xol rek lola asaru buñ ko xasee xàmmee dañ koy wax muy toog ci këram bañ a génn di xool yëfi jàmbur loolay ayubu ñu di ko ko topp naa ko fayal ndax yaa ko war a fay yaa ko xool bali ci xew xew ci borom bët bu aay boobu lépp lu xool ci bëtam ba mu asaru moo ko war a fay mu tekki ne kon dañ koy tëj ci këram ne ko bul génn del toog rek bala ngaa génn di lor sa mbokki julit waaye daa mel ni ñoom dañ koo xamoon ci yooyu jamono man koo ràññee waaye nun suñ jamono ji daa mel ne mënunoo xàmmee borom bët bu aay ak borom bët bu ayut waaye àggoon na ci ñu xàmmee ko xàmmee goo xam ne hadis ba sax day wane bu kenn xoolee kenn bët bu aay noonu ba dara dal kookee ñu xool ana nuñ koy defal faje ko ko booy jàng ar risal da nga ko gis ca mujj ak yenen téré téere wa warna warna ci mukallaf watoom nga al jawariha ciriya al batnu te moy bir lisanun ak lamagn farjun ak pëy moy sawukay warjilani ak ñaari tank wa haynani ak ñaari bet yedani ak yari loxo saabihuha ak ñaari na sen al ubnani moy ñaari nopp ña man raa ku sammu laha ñeel leen andil ma aasiya gis ay mooy xaasa kon mu làq maanaam kon mu am rek xastan jub ajji ma xam mboolem jub indi ngir kullu xobbin bépp cër saax yoo sama àndaale min xaaj ci cër yooyu xaabalat jàkkaarloo naag baabun bunt mi ne niiraani ca sawaree fii maa ci la xam ne xaddu sabata sax na wa kullu mënta képp koo xam ne xaafi zaha wattu na leen laa yedd xulu du dugg baaban bunt minal biibaani ci bunt ya fiimaa la nga xam ne yun xalu def na ko toxal wa kullu xobbin bépp cër xadd xasayta bopp mooy nga bi ak moom abadan faw tàdd xulu da nga tàbbi bihaa ànd ak moom baabaxaa buntam ba xadan ci ëllëg mu ne mu kàllaf mu ne war nay sàmm juróom-ñaari cër yi nga xam ne yàllaa ko ko dénk muy biir benn làmmiñ muy ñaar pëy sawkaay nga boy ci buntu suuf ndax manes naa mooy ci buntu suuf muy wet ñaari tànk nga wàññi leen benn ñaari bët nga wàññi leen benn ñaari loxo nga wàññi leen benn ñaar nopp nga wàññi leen benn juróom-ñaari cër yi daal nee na kenn ku ne war na leen sàmm ba jëfal leen ci yàlla boroomam di ca moytoo jàdd yoon ku sàmm na juróom-ñaari cër yi ba moyoo ci yàlla xamal ne kon am nga lépp luy jub am nga lépp luy tawfiq tey ak ëllëg ndax ne benn cër bu ci nekk dafa am sawara boo xam ne la jàkkaar lool ku sàmm cër yépp yépp mucc ci mboolem bunti sawara yooyee koo xam ne nag yàlla nattoo na ko mooy ci benn cër su ko jéggalut ci bunt boobee lay dugge sawara ànd ak cër boobee léppam xam ne kon ku mooy yàlla ci benn cër ci cër yi rek te yàlla jéggalu ko ba mu am yërmandeeg tawfiq bunt ba jàkkaarlook cër boobee ca lay dugge sawara wa an